géej bi teral ndeyam dëxin géej lu apparentib géej doo ko sóoru say ma dëxin géej yaa ko mën lu baax dëxin dëxin géej yaa yàgg am maanaa dëxin dëxin géej yaa yàgg am personnalité <laughs> wuy fekk Amina yaayu Amina. Ndey Asoo ngi. Mbakar rek dara maar. waaw am loo kumba caam. waaw nañ Penda Malick bëgguma Penda. xar yàlla bopp coor. Ngun biram xujatam. Mbaalo biram xujatam. Kombaas biram xujatam. laay laay la laa. foo woo bopp. du apparenti bi jiyee. ko sooru say maas. doo naa morom xooñ. eh xoolal. ndey kay bonde pa warde mila ak moola ak ajal kay kay bonde kay bonde lii awulin lii chéri pa lakk na dëkk bi xanaa neex maa yërëm sa noon maa fe sa noon laay laay la laa sa noon du kontaan sa noon du békk sa noon du ree dangaa mën lu baax te teral sa ndey boole sagal sa ndey téeram sa mbay laa ilaha illallah borom yaay ju riis jaangi kalaay sa yaay ju baax ja tiwaawan du apprenti jeeg sëñ Babakaray sa mooy borom ñaani xaas maw doy sa maam na say noon bi keeful <laughs> Serigne Babacar bu ñaanee mu dal gi da dan xim dan xim dan Aïda Thiam sa yaay bu ñaanee mu dal waay sa bàjjen sa maam maliku mba joor faralam faralam ba ñaari yoon da booy sa maam yaay da mel ni géwél yaay buuri géwél yaay borom sigier xoolal fexe nga askan wi nga bokk kenn gënul la ci laay laay la laa état si yaa nga Ndakaar fekki leen bu xew jotee nga def bu baax jàkkaarlu giir ñi wax leen lu baax yaa leen saf te yaa leen bëgg te ñoom it yow la nuy tiitaroo te di la teral doo rambaaj doo fimisa doo jaxaasekat te luñ la wax nga jël daal di ree doo mer caam caam ee eh, bokkuloo ñi naan